sama bàyyi sama xarit Moustapha Cissé Lo kooku danoo yàgg 2007 lan ànd man ak moom ma di ko ñaanal gudd fan ak wér Moustapha Cissé Lo ba xam ne dana làkk ñu bari xol bu rafet la yor xol bu rafet ku ko dégg ci noonu muy waxee ci télé walla ci rajo mën ngaa bàkkaaru ci moom mais nit ku baax la li ma gën a jàpp ci moom am na ausur ñu ànd mesere benn daara alxuraan bu nekk foofu ak koor la woon du ko fàtte mukk ñu ka ñuy campagne bi demee ma dugg ci daara ji fekk donga yi ñaqatooy xépp nga xam ni keroog da doon tuur xéewal da doon jooy ni sëñ bi ñii moom ndax dañuy woor mu ne ko waaw ñii de dañuy woor mu daal di àngaata daara ja te suba ga la tàmbali daara ja tabax ko tabax bu yéeme boo xam ne ku fa dem muy mesere gii ko fa dem xam ne ko fonk daara la ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne kenn mënu ko wax kon ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak gu wér balim bëgg liggéey lépp mu liggéey ko di sant waa kër ga bu tuddee soxna ndey Guèye tudd soxna Yemut tudd soxna Yaama tudd njaboot ga ñëpp sëñ kosoog mu Mbacke ak ak gaa yëpp daal bu limee dana juum ñoo ngi leen sant di leen ñaanal liñ bëgg a def lépp ñu defe ko ñu ko bëggee ci barka Seexul Xaddim jërë ngeen jëf waaw Moustapha Cissé Lo bii laa koy may maanaam golo gu bëgg golo gi paa bi da wuti ñam bi daq am parentéem yépp ni bool yi danoo reew daal di dem wut ak golo dem park an wut ak golo di wuti ñam bi léegi aj golo gi ci kaw waaye golo gi ci jëmmam bu bu bu rombee dëkk suñ jaaree bambay waa bambay di ko tàcc naan ko goolo gool mu naan nii ñàmbi ji naan nii di baatali ñàmbi ji paa bi bu ñëwee réglé per mu ni waaw man sama ñàmbi ji wax dëgg lu ko ndax sama waaye ngi ci kaw moom ñàmbi ji war ta manqué léegi mu demaat ñëwaat réglé per bi ko ñetteel nag mu réglé seetu bi ba mu tolloog fi goole gi toog ñu jaaraat bambay mu gis waa bambay naan ko goolo mu naan nii ñàmbi ji di baatali di wëndeelu di baatali ñàmbi paa bi gis ko ci seetu bi naa sama waa ji ndeke moo may toroxal bi mu ñëwee góor gi tëjoog moom ci ab néeg wuti ndam ba dóor ko dóoru dóoru dóor ba golo gi di laaj ñu demaat wayaas mu ajaat ko bi ñu tomba tollaatee Bambey waa Bambey naan ko golo gol ma ni góor gi